trio bi la Momo Mané Mansour Fall Ndeye Mbacke Diop du mën a ñaax ba tax na tey jii 12 juin 2021 ñu ngi Fatick kan moo woote Ndeye Ndiaye Tyson jigéen ju mën góor ga ba tax na ba mu ñëwee ca dëkk ba dafa jël jëf yi delloo ko borom dëkk bi di Matar Ba ministre des ñi am kontaan ci moom lool lool lool Ndeye Ndiaye Tyson nee na fu jigéen taqee fu góor taqee tubayam jigéen mu fay tax tubayam ba tax na tey jii teg na fi mise 5 daal koy jagleel képp ku bëgg làmb ba dañuy dugg rek xool ko tegal ministre des sports la Eumeu Sène la Eumeu dañ lay nuyu. waaw ma ñu ngi lay fay. teewaay fii. ah loolu suma mooy que ku ne ku ne xam ne suma digganteeg euh, ministre des sports bi Matar Ba que tey bu xewle rek man maa xewle voilà tey loolu bokk na tey suma teewaay fii bésam suma bés sa tey moom mënu moon ñàkk may teew waaw loolu ma ñëw. sa xarit waaw Gris Bordeaux moom sama xarit la sama doomu ndey la waaw loolu loolu la yàlla def ah. Eumeu Sène a ngi nii tungalu teew ñu nataal nga nga Eumeu Sène a ngi nii tungalu teew ñu nataal nga jël troisième avance Balla Gaye numéro 2 noo koy waajee. Eumeu Sène. ngi nii. nit ñi li ñuy laaj yow doo fi nekk ñuy werante dañ la koy laaj yow mi nday mbili gi troisième avance bi. waaw combat la kon yeneen taxaw na ñuy def lu dul waajal rek kon ni ñu waajee yeneen combat di si ñaan ndam la non lug bi damaa yer karo gu mbëri ma def nii rek sama doom yi ne dafa leen neex ma bàyyi ko nii. ah. di kay wax ni ko amateurs yi namoon nañ ko te daa bay waaram ci làmb waa ni mu def nii dañ ciy kontaan bésu Ndeye Ndiaye Tyson bésu mbër yëpp la bésu amateur yëpp la parce que jigéen bu mën góor la ñafekat la fayatkat la waaw man maa ngi koy maa ngi koy gën a encouragé di ko gën a félicité waaw na def maximum. gars yi namoon nañ ko. looy wax fan sa Eumeu Sène yi. ah fan sa Eumeu loo leen di wax. kooku fan sa Eumeu Sène yi. jëlee ñu rek. bis yi ñu jëm ñaan. te dañ gis beneen beneen Eumeu Sène lañu incha allah. ñu lay fay ma soeur. la ma teewaay bis bi. waa xam nga xam nga nit moom d'abord ay mbër lañu dañuy am sawar dañuy dañuy am dañuy am cawarte trop bu ñu woowee suñu ay suñu milieu ak fu mu nekk rek ci Sénégal dañuy sawar a dem foofu parce que que suñu métier la. ba am na lu ñuy symboliser am na tamit loo xam ne euh, suñu ay responsabilité moo ñu yóbbu foofu muy nekk jiite jiite mbër yëpp tey tamit li ñu tax a jógee Dakar ba Fatick suñu sœur day jaay Tyson di jigéen nekk ku. yàgg innové làmb boo gisee décentralisation mu def ni c'est extraordinaire c'est làmb yemul ak Dakar ba pare bëri bëri bi tamit il faut ñu impliqué ci calendrier bi parce que am na ñoo xam ne dañu opté pour def bëri simple ah moo tax tey dañuy rafetlu trop engagement yi mu jël ak euh, bés bu rëy bi nga xam ne jigéen na ko jigéen na ko organisé sargal fi si suñu ministre suñu ministre tutelle muy Matar Ba di kenn ci ñun ah le monde du sport ah. particulièrement làmb am na ñu bëri ñu koy dàkkantalee ministre de la lutte parce que du loolu sax mais daf ñu jox cër trop bëri na ay ministre yu fi jaar avant moom mais cër bi mu ñu am jox jox ko discipline yëpp jox ko le monde sport mais particulièrement làmb ñun ñi ngi soog a am ministre spor bu ñu jox cër boobu moo tax nag nit ki parfois nit ñi mu la def mooy tax doo xam noo koy def moo waral suñu teewaay fii suñu sœur di ko sargal ci làmb ju rëy bi moo tax ñu bàyyi suñu yitte yëpp ma ànd ak suma ay frère ànd ak Moustapha Gueye numéro 2 ànd ak suma frère euh, Eumeu seen ànd ak suma jumeau ànd ak suma suma suma seen pap euh, ñëw fii uniquement pour bokk sax bokk ci nit ñuy taaral bés bi bés bi taaru na ba pare waaye dañu yokk xar mi karaw rek ñëw def suñu partition te tamit làmb tamit fu ne la ñu am ay fans ah, ñun fu ne la ñuy tiitaroo nekkul mbir mi yamul rek Dakar am nañ fi ay fans am nañ fi ay xarit am nañ ñu fi béggee ñëw fi tamit pour yokk xar mi karaw parce que nag bër bi bis bi ala daw me na ba pare dañuy ñëw rek ñu dox suñu partition yi am contentement trop ñëw fekk fi suñu fekk mbir mi rafet lool waaw di ñaanal waa Fatick jàmm di ñaanal ministre jàmm. nga sàcc nga jël Balla Gaye numéro 2 looy wax fans yi. Hmm? nga jël Balla Gaye numéro 2 looy wax fans yi. waaw ah, mais moom xam nga c'est particulier xam nga li may wax fans rek mooy xam nañ ma xam naa leen man may samay bés du yomb samay bés dama koy waaj comme ni mu ko waajee def ci li ci war di wax ni rek bon des na mais daal ñu ngi ci te ñu ngi leen di bàyyi xel di am contentement trop di teew fii di wax fan si je suis xam nga je suis là comme toujours ah ensemble. ñu noonu Moustapha Gueye man ko yóbbu faas. tey Ndeye Ndiaye Tyson kenn du moom kenn du Ndeye ci mim réew ñaar adversaire Balla Gaye yaa ngi noonu ak Tapha Gaye gis géew gu Serigne Ndiaye numéro 2 bu Fass macha allah li rafet na lamb lii la boole waaye du tàggale Mansour Pape Birame Faye premier combat lourd Serigne Ndiaye de Pape Birame Faye lamb ja jeex na xëcc na ko mu rëpp def kat appui mu ngi doon nag diggante Abdoulaye Senghor Mbaye Babacar ak Zal Zal Nangalor Abdoulaye Senghor doxul Senghor mbot ba waaye lii la tamit waru na ko ndomba Ablaye ko war noonu kat appi wala koy budd luy xew luy xew arbitre loo wax mu neex lu ñuy def lay la xel laa daanoon na arbitre bi décidé kuy daan lu arbitre bi wax lu arbitre bi wax ca bay na nga am premier combat Obali ci lour tirage baa ngi noonu Mamadou Seck ak Obali la Mamadou Seck Ibu Ndiaye Obali daw na ko fil na ko mënut a nekk war na ko nomba laay laax la laa fu ñu jëm Obali bu na ko ci kaw doon na ko suuf doon doxul jàmm Ibu daan na Mamadou Seck ay ca ci combat waaw combat yu neex a noonu nag caaka fay ak Serigne Ndiaye waaye ëbbal yi ak Sane Ndiongolor nga ne la sa ginnaaw Caaka Faye Serigne Ndiaye daw na jël ko Caaka bañ na euh, Serigne Ndiaye ak Caaka fay mu mel ni Serigne daa bëgg a jeexal combat bi Serigne daw na song na ko Caaka bañ na Serigne daw na jël na ko Caaka mbotti na ko Serigne ak Caaka mbotti wala oh Caaka Faye ak Serigne Ndiaye Caaka Serigne a ngi koy oh Serigne a ngi koy jéem a jël Caaka a ngi ma ngay bañ Serigne Ndiaye ñaari poids lourd Caaka lonku na ko caxabal dina ko mbottiwaat Serigne Ndiaye ak Caaka Faye oh Caaka Serigne dina la daan Caaka Fay Serigne Ndiaye dina la daan daan na ko sëriñ Ndiaye daan na Caaka Fay jël ba leer na Obali ak Saaj Obali féete càmmoñ wala nga ne Ibou Ndiaye Diof yor mbëru Maadou Jon bi moo yore ngembul xonq li moom Obali doom day la Star ak Lopez moom la ak Kaane Sadam wala nga ne Saaj Obali jëm na ko mbotti mu moy wër na ko ndombo Obali ak Kaane Sadam ma ngi koy tër ma ngi koy tër ma ngay bañ Obali waaw kat api ba mat na. a ɓoli danna kaani sadam jel ba leer na quart de finale arbitre bi sifflé na ñu ngay Leewtoo di topp en direct ci Leewtoo TV Ndiaye Obali Serigne Ndiaye jël na tànk ba waaye demul Ibou Ndiaye Obali Serigne Ndiaye de jël na tànk ba lu koy def arbitre arbitre war na ko ndombo Serigne Ndiaye de war na Ibou Ndiaye Obali ndombo da koy suul wala lu koy def Ibou Ndiaye Obali Serigne Ndiaye de ñu ngi ga def na kat appui Serigne Ndiaye de daan na Ibou Ndiaye Obali. waa final bi gis naa ci ñaari mañ samay mbokku njool lañu. jël la am njëriñ waaye yow doo bëri tapet nga ngay lay lay mi rek Moussa Thiam léegi am na ay mbër ay laa ilaaha illallaah lu arbitre bi wax dama noonu ci suuf lu arbitre bi wax nee na ko xel Ibou Ndiaye Obali ak musa Ndiaye Rayma Serigne Ndiaye numéro 2 bu Faas ak Moussa Ndiaye ñu ngi ca xale baa ngay demee latéral dem gauche dem droite Serigne Ndiaye 2 jël na ko Serigne Ndiaye nga koy saqatal waaye demul génn saako ba. dara xel waa dina leer léegi léegi nii. at bi sifflé waa nag dina leer Serigne Ndiaye numéro 2 Moussa Ndiaye. ku nekk am nga benn avertissement. Serigne Ndiaye de Moussa lay laa la illallaah jël na ñaar tànk ya tal ko daw moom daal koy daan jël bu amul benn werante final baa nga noonu Diène Diouf Diène Diouf Alioune Diouf ñu géegu attention mbot wala faqat mbot wala faqat plaqué ba lu am waa leela ni jeex na tàkk daan ko c'est fini jël na final ba. di mooy Samba Sarr dëkk Palmarin Samba Cissé Samba Cissé bi lan ngay préparé nii pour di ko pour bëre ko nii. man ah ñaan yàlla jël ndam daal. final ngay bëgg a bëre nii. waaw waaw kan dajal. Serigne Ndiaye xam nga ko est ce que. non mu bëre rek mais xaw ma xamantuñu. déedéet parce que xam nga ki ngay dajal day. mba mba mbaru tànk la. ah est ce que ki ngay bëre mbaru tànk la. waaw waaw xam naa dara. préparé nga loolu. waaw pare naa pare damay wax waa Palmarin ah di leen di leen ziare ñoom ñëpp kon am naa moom mun amu seen fay daal. waaw da ngay jàppale daal. waaw waaw kon mbaa ñu ne la bonne chance rek. merci ah. naa ni ñëw finalu ci bis bi nga xam ne moom la ñu duppee wala moom la ñuy sargalee ki nga xamante mooy le maire de Fatick moom la ñuy sargalee ki nga xamante ne mooy le ministre des sports monsieur Matar Ba Ndeye Ndiaye Tyson ak dem ba ñibbi te ñu wax ak nday mbili gi moom mi organisé ba mu organisé gis nañ li xew ci stade bi dañ koy nuyu laako ci ñaari kàddu sama yaay booy maa ngi leen nuyu waaw maa ngi leen di fay bu baax a baax di kontaan si di leen euh, félicité di leen ñaanal yàlla tamit ci liggéey bu rafet bi ngeen di def nga organisé lu simple fii ci Fatick lan moo waral choix bi Fatick waaw li ko waral xam nga dañoo am suñu xarit bu nekk fii muy ministre de sports di monsieur Matar Ba mu nekk suñu xarit nag euh, xarit bi du tey ndax euh, bi ñuy xamante ak moom boobu nekkagul ministre mu nekk nit ku baax koo xam ne nag mosul sensé ni meloon démb ak noonu la mel ba tey euh, yàlla def nag ñu gis si moom jikko yu rafet gis si moom comportement bu baax ñu ñu mel nii nag dañoo war a sargal ci réew mi ndax lu dul baax baax a ko gën te gis nañ muy def jéego yu rafet rafet te doomu aadama buy def lu rafet da koy def wan ci bi muy dund ndax booba lay am sens bu ko defee ñu bëri roy ci moom it mu gën a góor góorlu xam ne lu dul baax rek baax moo ko gën te comme lii si suñu métier la bokk muy suñu xarit mais ñu ni nañ ko sargal mais waxtaanaale defaale comme xawaare yëngalaale Fatick xam nga animation bi waa Fatick kontaan ndax moom mooy meeru Fatick tamit loolu moo taxoon rek ñu ñëw sargal ko sargalaale waa Fatick yëpp macha allah yëngal nañ Fatick lu mosul am am na tax boo duggee ci stade bi ba nga dugg see gis stade bi nu mel fees ambiance bi Matar ba ñëw ak ay mboqam loo yëg. waa kontaan damaa bég bég bi ma njëkk a bég mooy waa um, Gambie ministère sport bu Gambie ndax ku nekk xam nga ni Sénégal ak Gambie benn la. ñoom euh, yàlla def ren ñoom ñu kale bi ñoom ñu am ñu qualifié ñoom euh, pour dem si coupe d' afrique bi te Sénégal ak Gambie benn la ñu leen di félicité waale sargal leen sargalaale sëñ président ndax loolu ci ayam la tombé ñoom tamit yëg biñ leen yëg ñu war ni ñoom tamit ñoo ñu gën a yëg déplacé wu ànd lu mat 20 personnes ànd ak sëñ ministre des sports ñoo am fi ñaari fan ak ñun. loolu bokk na si li nga xam ne gën nañoo marqué ndax bëgg boo gis nag yëg moo koy fay loolu neex nañ mais ñu dikkaat Fatick nag waa Fatick tamit teeruñu teral ñu macha allah kaar comme niñ leen xamee rek ndax dañ see bëri ay xarit bëri nañ fi ay xarit yu bëri yu nekk Fatick mais macha allah kaar ñu bëgg rek nag kontaan waaw ndax woote ñu wuy si la rek dafa neex. nga bëgg kontaan loo def mu neex da ko war a dàbbi baat ñu mën nga mën xaar suñu yaay fan. waaw am na si yeneen raison yoo xam ni euh, xëy na bu ñu tabaskee ba pare dinañ ko dégg ndax euh, mu ngi ci suñu xalaat te ñu ngi koy dox si kàttanu yàlla incha allah. maman mën nañ laa ah, si loolu lañ xamee di waaw lée lii dafa nekk loo xam ne dañ ko ci war a boole ndax dañuy am ay soppe fu nekk ay soppi la am fu nekk fu ñu dem ñuy wax dañ leen a war a jàppale ci làmb ji ndax xale yi fépp lañ nekk te si boo demee ci raison yi euh, sans frappe bi lañ gën a bëgg loolu moo tax ñun tamit ñuy bay suñu wàll ci waar wi ndax tamit ñun ñëpp suñu njaboot lañ mais ku nekk xam nga Ndeye Ndiaye Tyson si avec frappe rek lañ ko xam. jërëjëf lan ngay wax sa big si nit ñi rek xam nga sénégalais yi moom. mënuma leen a fay ñi nekk ci réew mi ak ñi nekk ci bitim réew ndax bëgg giñ ma bëgg ak safoo biñ ma safoo mais bi ma leen bëgg nag moo ko raw mais di leen ñaanal jàmm rek di ñaan yàlla defal ñu jàmm ñun ñëpp yéen tamit ba leen di ñaanal yàlla ah yàlla defal leen jàmm defal leen ay xéewal seen liggéey bi barkeel lool waaw ndax li metti na nag xam nga jigéen ah xëy suba nekk di daw ak caméra ni mu mettee bëgg am ay éléments yu baax defar ba mu baax xam nga yombul we nag ku bëgg a tedd il faut nga sonn maleen di ñaan yàlla na leen yàlla jàppale jàppale jullitu yàlla yëpp ak ñu mel ni yéen. ak Samba si Cissé Adou sifle na de jël na tànk ba Samba si Cissé Serigne de jël na tànk ba plaqué na ko waaye demul Serigne Ndiaye de Samba si final baa ngi noonu. drapeau Matar Ba Serigne Ndiaye de Samba si Serigne Ndiaye 2 Samba Cissé final baa ngi noonu Serigne Ndiaye 2 xar jëppet na ko da koy yenn wàllum koy def dina la ñaari tànk ya mu moom laa ilaaha xale yaa ngay bëre Serigne Ndiaye 2 Samba Cissé Serigne Ndiaye 2 wëral na koy def da suul wala da koy yenn wala da koy buddi Mansour Fall Serigne Samba Cissé doole doole doxul jàmm doxul jàmm. doole doxul jàmm. billaay wallaay taalaay. oo oh, gaaw na leer na. mu ngi noonu nag suñu maman Ndeye Ndiaye Tyson moo fi woote woon fii ci Fatick daal di koy duppee Matar Ba ministre de sports gis ngeen ni mu demee Serigne Ndiaye moo daan nga xam te ne mooy Samba Cissé jël ba amul benn weer daal di jël raw gàddu ga ca noonu na damay kontaan sama équipe technique bi ah Mansour Fall Mañ Pro damay bëgg ci moom bu baax a baax tur yooyu du mën a ñàkk moo maa ne Ndeye Mbacke Diop Mansour Fall def rek Fatick la woon ah leen jaajëfal bu baax jox leen di daje ëllëg. incha allah ci beneen épisode Leewtoo TV c'est le Leewtoo TV toujours Leewtoo TV encore Leewtoo TV Leewtoo TV partout Ndeye Mbacke Diop ak Mansour Fall ba ëllëg <laughs> ñoom ñaar jéggi na junior wàcc na jël na Tapha Tine dóor na Tapha a ngi dóor ci suuf attention Sa Thiès ak ñoom ñaar xeex nañu ñoom ñaar xeex nañu attention KO Sa Thiès Boy